góor jigéen yi nag yàlla na yàlla nasaxal seeni pexe ci réew mi fi yàlla buñ fi am ndam ak képp ku leen jàppale la 23 le 23 moom booy woo ñëpp bàyyi ci xel xam naa du neex deret ci réew mi ndax bari na ponkal moo gis mu solob kosam mbaa ponkal moo gis mu sol dara am te fekk nga ndam maami góor jigéen la hmm? koo xam ne day nekk bu ci gouvernement bi wala koo xam ne dañ naan kii ab sëriñ li ngir lan ngir àddina buy waaj a tukki laa yubaaluuna safwatan laqina zamanan laa yubaaluuna safwatan jamono jamono ji ñu dajal kenn faaleetu lu sell loo mën a am noo ko mën a amee fexeel ba am ko rek moo yitte ñëpp ndaw ñëpp jóg jëm ca nag waaye nag góor gi nee na wa fii talabil arzaq Seex Alxaaj Maalik wax na ko ca téeréem ba wa fi talabil arzaaqi yaa xaw mi ajmilu kama jaa an hëjil wara li safaa'i na ngeen rafetal wuti nii te comme ni nga ni ko rasulullah indee rasulullah nee na na ngeen gore te rafetal wuti nii ku ne sa wërsëg yàllaa ko yor bu nekkoon ci lexu gaynde it ngay daw wërsëg wa tëju li gaynde dina dajji sa buntu ñëw yablil la ko mu joxe nag misaal ci saxaaba yi na leen ana kan la dee masa jot dee ñëw ci yow ñu ne ko kenn mu ne noonu la wërsëg gi mel ku ne la nga war a jot di nga ko jot kon nag nañ gore rek